su jeexee rek jeex na nan yeneen te xol yi tey jii xoolal ma lii tey ñëpp a ngi fi ah ay ñoom booy ñaa ñëpp mbër yëpp presque ñoo ngi fi ay ñoom guy gi tout ñoom la de guerre kenn Aliou Seye kenn desul mbër yëpp ñoo ngi fi kon nag li ci war mooy nan yeneen te jàmm te xam naa bis bi dafay ñëw de bis bi dafay ñëw waaye gis naa fi lu ñaaw sàcc barki Serigne Saliou Mbacké billaahi wallaahi taala ñuy ragal lu ñu ragal yàlla billaahi wallaahi taala ay sàcc laas ni ñu koy def xam nga lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw di taf ay portable euh, ci biir ay armeel ah xanaa xalaatuñu ñoom dañuy dee ëllëg ñu suul leen ñu indi leen fii lii dafa ñaaw man sa bopp damaa ruus man waaye lii baaxul ah lii baaxul ah lii baaxul son papa yàlla ko yàlla xaar àjjana moom bay na waaram li mu waroon def def na ko ah am ay doom de wax dëgg yàlla ah am na ngërëmam de muy Balla Gaye de Sakess ñoom mala ñoom ñëpp paa bi gërëm na leen kon ku ne lii ngay ñaan yàlla nan ñaan yàlla sàkku ngërëmu waajur dafa am solo ci doom ngërëmu waajur nan lay sàkk ngërëmu waajur sama rakk ji yàlla ko yàlla may xool ko yàlla may xool muñ am Sakess gërëm na leen yéen ñëpp wax leen ak sàcc yi nag lii baaxul li ñaaw na